ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi suivre ci seen bi di Likzo TV mais gars yi ñu déglu révélation yi nga xamante ne bi Jimbori def na ko ci Françoise Hélène Gueye mii nga xamante ne bi dafa nekk di tuumaal Ousmane Sonko loo xamante ne bi du dëgg du yoon gars ñu déglu ko xoola gars yi affaire u Adji Sarr dama ni woon dootuma ci wax ma ni affaire u Adji dama ni woon dootuma ci wax mais yow soxna si yow dama la bëgg a tontu benn affaire rek yow violé la violé wuñ sa doom violé wuñ sa doomu mag violé wuñ sa mbokk violé wuñ sa dara léegi yow lépp lu Sonko wax nga génn tontu ko Sonko aji Sarr li muy wax doy na sëkk mais yéen ñii gérer Adji saar mais dama bëgg a laaj lan la dafa am lu ci nekk wala dafa am lu ci nekku ba pare yéen war ngeen a bëgg jàmm ci réew mii gis nga bopp rëy buy mett bopp tuuti bu sedd ko gën parce que gis ngeen ba bële passé fukki nit ak ñeent ñoo ci génn àdduna fukki nit yooyu ak ñeent xanaa amuñu parent ba pare bi ngeen di wax ba léegi fukki nit ak ñeent yooyu ndax yéen kenn ci yéen rek jóg na fàttali ko moo tax ma xam ni yéen ñii am na lu leen ci nekkal mais Adji Sarr moo war a way dëtt mbaa way deret parce que gis nga Adji Sarr kaay ma jox la benn conseil gis nga ñooñu la jël teg la benn ruq bi nga doogee commencé ànd ak ñoom li ñu amoon li ñu am léegi seex parce que ñi ngi tabax ci yow ay kër ni ngi tabax ci yow lu nekk def la projet jënd loola parce que yaa biir te duñu génn guble la ko aji saar dina nga saar yow xale nga sa avenir demagul fenn Sénégal a ngi sa kanam dund a ngi sa kanam lépp a ngi sa kanam mag yi nga xam ne màggatum kororoj-roj la ñu mel ni kura makeek ñooñu la wër li ñuy wax duñ ko def ndax du seen doom du seen lenn ba pare dama ne Sénégal yéen laa bëgg ngeen génn àtte kenn ku wër aji saar ko xam ne diine ñor na la mus ngaa jóg dox lu baax loo xam ne Sénégal gépp teg ci seen bët boo leen ko gise wax leen na